Ahmed euh, Ndiaye gannaaw bañ la nuyo wat Ndiaye ñu dooree euh, yene kay bi di l'observateur lañu koy doore dik ak ñun ci magistrat séné magistrature Sénégal ak coppite yi ci am dembu ci ndajem conseil de la euh, supérieure de la magistrature ci la ko jëlé bokk na ci Cheikh Tidiane Koulibaly di frère ci Abdoulatif Koulibaly mom lañu def légui premier président bu cour suprême Covid 19 bi ak it test ye ñuy def limu mu coûté Sénégal ba ci fukki fan ak juróom-ñett ci wéru mai yef ya ba nga won ci ñaari milliards l'observateur l'observateur moo dikkee loolee dikk naag ñu nit ci coowal faux billet li sandarma yi tekk loxo teñ ci doon tudd Farba Senghor ak Pape Diouf yéenekaay bi Pape Diop yéenekaay bi nee nañu ñoom ñaar ñooñu wedd nañ ko ba mu set wecc Mamadou Kébé benn waay la boo xam ne Touba la dëkk magama faatu ñu koy jiiñ ne moo ko faat bu nuppi so sànni ko ci foos bañ ko waxee loole ca kanamu policier la daanu xëm ndax mbetteel mu mu ci am soleil national dikk ak ñun ci soleil national mi am juróom fukki at ak lu tekk xëy na di waxtaan ak Baara Diouf muy nit li interview bi nga xam ne def nañ ko bu noppi te musu mësee su ko publier la tax mi ngi ci biir yéenekaay bi enquête dikk ak ñun ci faux billets yeeg mbiri banditisme yi nga xamante ne ji ña koy def dëgg gisuluñ gisuñu leen ca kaw la ñuy nekk di def lu la ñuy def gis na ne daal euh, fléau la boo xamante ne ji li muy yàq kan bari na le quotidien dikk ak ñun ci coppite yu am ci magistrature Sénégal nee na Macky Sall kon yëngal na magistrature bi Cheikh Tidiane Koulibaly wutu na Mamadou Badio Camara ca cour suprême dem Samba Kandji gaare ji na ca garage présidence de la république grand place dikk ak ñun ci kàddu yu mu ci Amadou Ahmed Ndir moy directeur général bu Hann Fishing Sénégal nee na gay pes ludul mafia grand place xamal nañu it ne maam góor jasaaka dañ ko jox ci aide à la presse bi loolee le journaliste yi duñu ko dégg ndax lu mu war a def daal bañ koy jox ci aide à la presse bi jaaxal na leen source soit dikk ak ñun ci xew-xewu jamono bu yéeme xale bu jigéen boo xamante ji kon ah, ab seetkat la dafa am benn baay peel bu jógee woon Gàmbi ñëw foofe am lu mu séq ak moom ba kook doom yaay ja ba mu euh, ba mu ko yëgee dafa jël xale ba daal di koy sànni loole loolee source moo ñu ko wax. Vox Populi dikk ñun ci coowal faux billets yi nga xamante ne ji ña nga cay ruumandaat ni Pape Diop ak Farba Senghor dañ leen cay tudd Vox Populi nee nañu muy ba Senghor di Pape Diop ñoom ñëpp weddi nañu loolee kon ba mu set wecc lise ko dikk ñun ci ñaari mbir bokk na ci club des investisseurs du Sénégal nee na Diagne ak Khadim Kébé démissionné nañu xamal na it ne këruk Abdoulaye Sylla gi nga xam deskos waa Descos euh, ak compagnie dañu ko daaneel fële ca Saly Abdoulaye Sylla nee na nag ba noppi euh, wuti avocat ngir euh, ni ñu koy xaxaraka tapas ak di ko mbii fa fora ñu dakkal ko ndax du caage naka du wax rek tax lu way yëkkati bëgg ko xëpp libération dikk ak ñun ci mbir mu doy waar di ñaari xale ya rendi won fële ca diwaanu Touba seen bàyyi bi ko def am nay révélation yi yéeme yu mu def ci enquête ba euh lu doy war sax euh Barth damay bañ yak fajaru nit ñi motax tax jaru jarut yegg nañu xaar ba ci revue de presse voilà las di ak ñun ci conseil supérieur de la magistrature yan leçon lañu mëna jangat ci chamboulement bu yaatu bi ci am moy li mu bind ci xëta xëtamu njëkk tribune dik ak ñun ci conseil supérieur bi nga xamante ji ci lañu jëlé jëlee dogalu pour jël ki di euh, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mu tok ci ca ko Mamadou Badio Camara Demba kanji wutali président présidence de la république qui n'a naka l'olé turbine mi ngi koy du Sud Quotidien moment qui ci lolé le xëy chamboulement bu le la gis réunion conseil supérieur magistrature gis na ne daal bari yu ci am ñu dem ci yéenekaay bii di record waxtaane walu tàggat-yaram ñaar la xëyee kalidu na Kalidou Koulibaly ba Manchester United teggiwuñu seen i gët ci 45 milliards mom la ñu teg ci taabal ji Souleymane Camara Petit Zul journal bi ne du omar di Oumar Daf dëggal na ne retraité na maanaam jël retraitam kii soog a toll ci ki ki nga xam ne mi ngi soog a di football kat bi di Haaland. Mhm. Haaland nag boo ko déggee doomu nerve Norvège la boo xam ne. wax le phénomène Haaland. Haaland ma nga ma nga noona moom euh, moom la stade yéen kay xëyee nee na moo gën a fort Messi gën a taqe Cristiano Ronaldo ci naka mooy fii mu toll nii ba fa ñooñee di toll li muy def moom alaan mii ñooña defuñu ko woon. te daanaka dañoo reprendre euh, Allemagne rek mu dugal. waaw mu ngi noona moom kay. moom daal bel camp yi rek lay gis. xalaan daal mi ngi noonu xalaan la rek. Hmm. ñu jeexalee ak sunu làmb mi di kay ñun ci Modou Lo Balla Gaye 2 Bombardier Eumeu Sène nee na rivalité bu dul jeex mukk ci diggante ñaari ancien roi des arènes loolee moom la sunu làmbu xëy dem maa nga wax càppaacoo bi maa ngi ko yëpp ëpp ñu mm. li ndeke mooy Boy Niang numéro 2 ah, waaw mu ngoog